baax na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Salih Dieng maa ngi lay nuyu. di la ziare di la wax gëj naa laa dégg. di kontaan tamit ci sa taxawaay ci sàmm gi nga sàmm kóllëre gi nga xam ne moom lañu fi mag ñi bàyyi loon. Euh, sama tontu nag bi ma bëgg tontu ci waa ji doon def waxtaan wi jëm ci jawaahirul maani la ko jëmale. waaye nag bëgg koo jaara ci kaw muudu kama. man li ma dégg ci moom ñett yëf la eh, te ñett yëf yëpp ay mbiri waxaabi yun rek la ay waxaabi yaat la rek bu ci njëkk mooy moom jawaahirul maani la tudd ni moom lay moom lay moom lay màbb lim baatu màbb jawaahirul maani pour tariqa tijaan màbb lim ko lim ci jaar yaakaar naa buñ jub bu bu bu bu bu ko bu ko jublu woon asamaan mabbu mu wax ko lu tol noonu war naa mën a màbb asamaan wax ji bari na trop mabbu jawahirul maani al tariqati tijaan mabbu jawahirul maani mab waa léegi ana ko dox diggante ak mabbu jawahirul maani ak mabbu tariqatu tijaan léegi nag moodu kama lim ko sédd ci wax ji dafa bari te moodu kama du jawahirul maani Teymuudu Kama waxul lenn lenn lenn ci jawaahirul kab maa ni loo xam ne moo ko njëkk a wax lim ci wax mooy li ci nekk te li ci nekk it amut nëbb puisque bindub téere ba pare di ko nëbb comme li ñu wax naan da ngeen di nëbb seen affaire léegi téere boo xamante ni bii ñun ñëpp moo ñu mag moom moo ko téere bi moo ko mag moom Fadel Fadel damaa xamul nu mu sant am na benn ku ma wax Fa Fadil Sarr wóoruma moom laam déet moom ci waxaabi yu ni la bokk Fadil Sarr mas naa. bind benn téere du téere sax puisque ñaar fukki kayit la tudd ko mulaaxabaat jëmale ko ci téere bi Serigne Cheikh Tidiane Gaye rahimahullahu bindoon doon ci tontu Mouhamed Ahmed Lo ci taqdisul ashxaas fi fikri suufi bu fekkee kooka la kooka moom maanaam sëñ Cheikh da koo juutaloon sëppe ko bopp moom lijjantiku pour nekkaat nit ca la war a toll bu fekkente ni kooka la bu dee keneen la xaw ma ko ala xaal du ñu wuute al kufru millatun waahida janax moom yëpp bu leen tëbee nga ne janax tëb na jeneen a ngoog la cay topp lu janax ya bari bari jeneen a ngoog jeneen a ngoog jeneen ngoog rek na ngoog léegi li mu wax ci jawahirul maani ci wax dañ koy màbbu baat yi bari na trop li mu weddi ci Modou Kama tamit wax ju bari la waaye amul amul maana pëpp la pëpp la melokaanu naafiq nag day day feeñ toujours toujours ci ñoom te naafiq boo ko bëggee xam mooy koo xam ni yaxsabuuna kulla sayxatin alayhi lu jóg ñu defe ni ci ñoom la jëm boo toogee di leeral sa njaboot say mbir ñu jàpp ni ci ñoom nga jëm li leen ko yóbbeen mooy jëf yu ñaaw ida saa fi'lul mar'i saa ar zununuhu nit ki mënta def lu ñaaw ba pare njortam di rafet ay def ko ti teef lañ moo seen njort du du du rafet seeni wax du mën a aussi puisque seeni xol moo moo dalut ala bi dhikrillahi tatma qulub xol mi ngi mën a dala ci tudd yàlla te ñoom duñ tudd yàlla yurauna annaasa wala yadkuruna allaha illa qalilan dañuy ngistal rek seen diggante waaye eh, ci ci tudd yàlla duñ ko def lu néew ay naafiq lañ basuhum baynahum shadid seenoo tàngoor ci seen biir lu garaaw la kenn ku nekk ñoom dañ lay tudde cheikh bi aywa dañ lay tudde eh, njàmbaar joo xamante ni bii da naan la dégg nañ fi nga song tey loolu seen biir la rek waaye buñ génnee ay mbuxuri la ñuy doon fu ñu dem dañ leen di wëtal wëtal leen la ñuy def jiital leen te Moodu Kama ni mu wëtalee téere taqdisu asxaas ni mu ko wëtalee ak ki ko bind te te te téere bee mag Moodu Kama nga xam ne kon ki ko bind ni mu magi Moodu Kama kenn xamul lu mu toll waaye gis nga ni mu leen wëtalee léegi fi ne nii lu ñuy wut lépp lépp lépp mooy na Moodu Kama bàyyi li muy def kese puisque mi ngi mi ngi mi ngi muri seen awra Euh, te bëgguñu mu muuri ko amuñu luñ ko muure waaye su ko defee loolu moo tax baatu Modou Kama bi bari na ci <laughs> ku jóg ni man damay damay damay tontu damay màbbu benn téere waaw téere bi lu ci Modou Kama doon tudd na ci Modou Kama ay yoon yooni yooni yoon ba mujj sax muy bàkku ci kawam naan ko bu ma la ëppul lu ma liir ëppoo ma loo liir loo liir benn yoon liir naa ko fukki yoon loolu ay fen dong la loolu ay fen dong la moom moom moom xawma lu mu liir waaye xamul lan ak lan la Modou ma liir te it mën a toog rek gis nit ki xam ne téere bi soo ko jàngee benn yoon man jàng naa ko fukki yoon loolu moom loolu moom iddia maarifatul xëy bi la loolu seen mbir la jéem a wax ni xam nga xam nga xëy bu loolu lay tekki man bi ma fi doon wax di tontu eh, sama di joxe sama xalaat boog ci tontu bi docteur Lo tontu Sidy Lamine Niass kenn ku bokk ñoom woo na ma ni ma léegi da nga ko war a bind puisque boo ko defee ojo feeg ñetti weer kenn dootu ko amati ku dul yow te liñ bind moom li docteur bind dafay sax ba faaw xoola sax ba faaw waaw ana yàlla kon li xanaa li bind jus un ko du ko eggale sax waaw nan la fi sax doog yàlla ba faaw nga gis ñoom ni ñuy taqdiise al al asxaas te mooy xam nga lu tax ñuy bañ ko wax taqdiis mooy ñoom taqdiis saa yuñ ko waxee rek ñoom ku ñuy jaamu lay war a doon te taqdis tollul noonu al aradi al muqaddasa ñun dañ koy làkkante nii ci ci ci jamono ji te wahabiya sax ba mu tasee ci saoudia ba nag la baat boobu commencé di di di faible waaye al ardu al muqaddasa moom alquran tudd na ko yaa qawmi duxulu al ard al muqaddasata allati kataba allahu lakum kon bu suuf mënee nekk muqaddas te doomu aadama ñu bind ko ci ci suuf bu góorgóorlu lu koy tee lu ko أيوة فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوع أو xursul mën a nekk muqaddas nga xam ne muqaddas tekkiwul lu dul muawdam lu ñu màggal kese te màggal ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كم قال شعائر الله لن مو شعائر الله شعائر الله شعائر موي جمع له مفرد موي شعيرة moo mooy mooy alaama mooy màndarga alaamatullahi mooy lan mooy yiy wane amul yàlla ci kaw suuf lu demee ni ki kaamilu alquran bi lu demee ni ki kaaba gi lu demee ni ki te saairullahi fii li ci yàlla jublu mooy mooy mooy mooy mooy mooy wal wal buduna jaalnaha lakum min saa'irillah aw nag aw nag su ma nee bokk ci wane ne yàlla am na te yàlla ni ku màggal li nga xam dañuy wone ni man amna lol limi tek yow kuma ragal nga kon xanaa ku màggaloonoo nak ngir li yàlla ni wal budu naj'alnaha lakum min sha'airillah dellu fe mu ni dalika man yu'azzim sha'air fa innaha min taqwal qulub kon ku demon di màggalu nak bi maana di ko réel di ko jox muy lek pour mu sour di ko sang ka faj pour mu douf pour nga def ko hadiya dañ nan yow kat ya alquran nee na la yow am nga ragal yalla wa legi nak nag wi day tegtale ni yalla amna waye nak nag wi munu ko wax ci garab gi day tegtale ni yalla ku am la waye munu ko wax ci lamiñam ñam wi day ni yalla ku am la ndaxte ñam wi sakul bopam nag wi sakul bopam bo topé ka ko sàkk rek bo topé reen bobu da nga daldi xamni yalla la su ko defé wa doomu adama mi nga xamni moom man na laa jàngal ba nga mokkal saar wii man ki ma doon jàngal ba ma jàng alquran ba man ko ba fer ijji te man li ma neex mooy ki ma jàngal ijji moo ma jàngal alquran man nekkuma di gëweelu ba dajeeg ñu naan dañuy dund sunna léegi man ki ma jàngal lépp du moo ma ki ma jàngal la ma jàngal li ma xam lépp te it ci sunna lañ doon dund ñun ñëpp ma jàngal ba ma mën a xam dhalika wa man yuazim sha'air allahi ak wal buduna jaalnaha lakum min sha'airillahi waaw léegi danaa dem di màggal buduna ba pare bàyyi ko moom moom mi ma ko jàngal te moom it ak nekkam ci boppam day wane ne yàlla ku am la maanaam mbindaafoon yi seenuk am day tegtale ne yàlla ku am la ndaxte ni mu yi mënuñoo sàkk seen bopp ba ngoog nan la ko boroom téere ba waxe maanaam am na nu ko ibnu ashir waxe teewlu ma bayti bi mën na am dana dana dikkaat ci man balay balay sori balay yàgg waaye daal mbindaa fan mënut a bind bopp xaajatu kulli muxdasin li saanici waaw kay wujuduhu lahu dalilun qaatiu wujuduhu lahu dalilun qaatic xaajatu kulli muxdisin li saanic noonu la wujuduhu ak amam yàlla subhanahu wa taala lahu am na dalilun tegtal qaatic bu dog buy wane ne yàlla ko am la te loola mooy xaajatu kulli muxdathin lépp luñ sos soxlawoo gum soxlawoo li saanixi ci ku ko sos man ama aajowoo ci ku ma sos mënu maa sos sama bopp kooka ma aajowoo mooy ndey tegtali ne yàlla la léegi nag su fekkente ni taazimu shaairillahi min taqwa alqulub te shaair weesuwul alaama العلامة الدالة على العلامة الدالة على وجود الله ما نرجع مي وانني الله كأملا نعت تعظيمكو ت حدود يوم ورا يوم جاي ملكو ت بنا جاول الله جلنت ملك جام وخدك يا الله لولو منسكو كي تنا تقدس ذي تك تعظيم بعد ما تقول بيم كي تعرف تيرين بي بيم خالتي مع جمي تيرين هم نتير اللغة لا دي خال نيني نيني منو تا أم بن بن بن بن بن bu ko dagadalal lim bëgg wax <laughs> mu ji mu ne rek al muradu bi taqdis <laughs> daal nga xam legi dafa jengu mas ma setan ci lamb ji menn mbeur mo xamni ne gàllaaj mu doon def na ca am nda lo xamni njaq yu ndaw yoy ñu def ca eh, am ndox bam mu ko sotti ko ba nopi dal di sànni njaq la bam kawé trop ba njaq lay delu ci mbeuk ko aha far yalla dogal nak ba ba xaañu la toj ba ba di ko docteur yi ñoom ardo faja faja faja faj ba deret ji arrêté mu dem liw liw tooti tuuti deret ji commencé waat di dikkaat mu dikkati ñu faja faj faj faj ba deret ji arrêté mu dem liw tooti tuuti deret ji dikkaat mu dem faj ma yeex rek mu mu daal di jëngu daal di fay bàyyi ardo dem ñu daan ko waaye wahabi it noonu lay def day toog ba yàgg rek mu dem pour ñu daan ko léegi loo bi mu wëree wër amul lu ko mën a may li mu bëgg ci taqdis mu daal ne almuraadu bi taqdis non mënoon naa mënoon naa wax iraadati mënoon na koo mënoon na koo nisba ci mënoon na koo askan ci boppam rek waaye almuraadu lay wax pour mu xaw a lëndëm tuuti yooyu mbiri mbiri mbiri wahabi yun la léegi istilaa giñ tolloon te Fadel di ko def ci kaw ci kaw euh, Modou Kama laa bëgg a wane ni loolu ay tappale kese la ak di jéem a yàggal nit ñi ci foo xam ni yow la fa am yaa ko fa créé comme toog ba mu yàgg nga jékki-jékki bëgg a wax ci nit ñi dara te amoo loo mën a wax ngeen di fen fen fen fen bon na fen bon na fen mooy nga ñëw fekk loo xam ne taqul laalewul te leer na la ba noppee nga ne taqe na laale loolu nag yéen ñi koy def da ngeen mën a fen te yàlla bëggul kuy fen innama yaftaril kadiba wax a wax a wax nit ñi di la déglu te li nga fi wax lépp yaa fi indi nit ñi dunduñu loolu soo noppee affaire bi day naaw dunduñu ko moo tax loolu melokaan la ci melokaan waxaab bu mujj bi mooy dafa mën a fen moom faadal dafa mën a fen puisque bi mu ñëwee ba agsi ci li Cheikhna Ahmad Tijaani Chérif radiallahu anhu wax te mooy ida sami'tum anni shay'an awwalan ibaara bi ko sëñ Cheikh wax bi ko Seydina Cheikh waxee moom da ce yokk donte lee waxuma ko donte lee waxuma ko sëñ Cheikh wax ko fen day kàcc da koy fenal dong ba noppi nag mu ni léegi li ma ci gën metti mooy mu ni lii su fekkee moo wax mën naa am ma ma mën naa am waxu ko dañ ko koo sosal waaw mën naa am waxu ko kon dañ ko ko sosal bind ko ci téere bi mais moom waxu ko wala kon mën naa am dafa tuub ci mujjug dundam def lii wala sax mu wax ko te fekk day jéem a naxasaale di nëbbu nit ñi di tappale léegi eh, xoolal yi xam nga léegi ñoom dañ dul jàng mais ci usul usulul fiq ci istidlaal dañuy wax maa daxalahu l ixtimaalu saqata bihi l istidlaalu loo xamante ni bii ay dem-dem le dugg na ca kenn mënu caa sukkandiku lu ñuy dem-dem le bàyyil ba mu leer la bala la leeree ni ay dem-dem la nga taayee atte bu demee nag ba nekkul ay dem-dem le nekk waaqia nga doog a atte waaye yow nga daal di atte ci ay dem-dem la yoo xam ne yow indi nga ci ñett ci say fen moo tax ba daanaka jekki di leen déglu te man saale waxoon na ma ko saale waxoon na ma fi dara nag na ko déglu mais waxu fi dara danaa ko continuer déglu dama amul jekkuk mën a jot ci seen audio yi ñom comme ni ma ko war jote ndax al jumtukaay yi ma yore téléphone yi ma yore xamna ni rek téléphone dongoy dara la waye ma ngi ci pexe mu téléphone bu baax bu am capacité bu mag pour mën leena déglu te man duma tay ci di leen déglu te it duma décourager te it duma ndax té wala ya tunani bi masalin illa jaani llahu bil haqq واحسن تفسيرا دون اني ماني مثال بور لنتل طريقه بن بن تي طرق الصوفيه المعتبره المحرره بالكتاب والسنه لودول ني يالا دنا جوخ طالبي ييب ليرالوك مانا فيد لاني واخ تا دون تي سون تين تولني من دنا ييك لوما مانان ليجنتي سي سيني مير لو خامني مانكو ييك بيس بيما ديغي بروبليم مين ديف avant ñu def problème bi xawmako woon man naam bu subaaba fàttiku mais fu ma déggee lu jaaduwul ci ñoom la ma koy leeralal day mel ne jëmm ju taxaw sama kanam ko defee ah damay taxawal foofu ndax jumaa ji mi ngi jege si te damaa war a dem jumaa julli ji li leen xamal ni daal ñoom yàlla nattu na leen rek yàlla nattu na leen te mooy seen làmmiñ dañ koy ubbi di fen innama yaftari alkadiba alladina la yuminuuna bi ayati illahi wa ulaika hum alkadibun xamal ni képp kuy fen gëmul alquran maanaam ñàkk gëm alquran fa ñu waroon a teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu teg fa docteur Ahmed Lo yàlla nag luñ ko place bu Mouhamed Lo ni woon alquran ji sos da cee am ñu daal di ne waaw waaw docteur ko wax loolu loolu loolu ñuy jéem a tere nit ñoom ñoo ci dugg gis nga tasawuf ñu lim ñuy jëriñ njëriñ lim ñuy jëriñ ñoom ñoo ñooñu ko gën a soxla waaye nag malaat bu tuuree garabam comme ni ma ko doon waxee malade bu wéqee garabam mu dali fële day découragé loo ñu koy faj te bu dee daa xaru loolu moo leen dal yonent bi sallallahu alayhi wa bi dañ ko laal laaj waaw ndax jullit dana dana dana ragal waaw waaw ab jullit dana ragal waaw laaj ko ndax jullit dana fen mu ne déedéet al muslimu laa yakdib jullit du fen ku fen rek bokkoo ci jullit léegi nag man foofu laa yem ak ñoom ànd ak xeeb leen lool ñàkk leen a faale lool buñ ni ma woon aaya sàngam sax alquran moom alhamdulilah luñ ci wax bu ñu tàmbalee mën nañoo nopp ma eggale ñoom ñëpp nag waaye ahadisu rasul salawatullahi wa salaamuhu alayhi buñ ma ci wax ni ma rawahu buxaari doyu ci même bu loo waxee la ma cay doy muy ubbi buxaari yi xool ba gis rek leneen luñ indi ci yeneen téere yi du ma du ma du ma du ma ko gëm du ma ko weddi lu dul ma teg ci sama bët ndaxte dañ koo def defati ko loo ciy bind ñoom duñ bind ba pare di bind li ma gën a metti am na ku may loo te bindul te Sénégal boo fi toogee di bind euh, saabu bi ñi fi di jullit ñi ci mën a liir mbindum araab xam ko am nañ gaa waaye bëree wuñ noona waa ji nag bi ma dee tontu xam naa tont yi da leen xaw a dafa xaw a métti ñoom mu naan ma tontu bi baaxul ndax da ko waroon a bind man de xaw kañ la bind gën a leer wax. كاني لي بيند غينا لير واخ دال با ليغي خماغوموكو امنا تاميت فاصون بوني نات بروم خام خام ليغي نيوم وهابي يوني دا نيو جاخلا ريك واي نون كين ناتيو كو بروم خام خام سيدنا ابو بكر امول وون دكتورا سيدنا عمر بندول ماجستير سيدنا علي بن ابي طالب امول وون شهاده ثانويه ولا ابتدائيه ولا اعداديه باخنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيرين صالح جاك ماغي لي نويو di la ziare la wax gëj naa laa dégg di kontaan tamit ci